ba tey dañuy euh, wëyal ak yow euh, mm-hmm. gis naa sànq nga yaa ngi tudd Ada Bey ak Zeyna mu nekk mariage boo xam ni euh, ñëpp ñu ngi koy rafetlu yéene ko lool Viviane ak yaayam mii di mm-hmm. yéene ko Zeyna ak yaayam ji di Viviane mm-hmm. mais itam bëri na coow lool ndax Cheikh Ahmad bi nga tudd daal dinay wax ni Ada Bey bi nga xam ne moo takk Zeyna du wax katu dëgg kan wax lool Cheikh Ahmad Tidiane Cissé Cheikh Cissé Cheikh xam nga aada bey mhm. euh, diw fenkat la mhm. ak fenkat laa du benn mhm. du noonu nee na aada dafa am kum doon seel mu tas ak moom léegi nag moom warul woon bàyyi kooku léegi kii muy seel dina ko bàyyi ndax bàyyi gim bàyyi kooku hmm? moom moom ñi mu jàpp bàyyi leen ñaata nit la bari de du dégg ba pare sëy dafa waroon def si boppam ni du amee fu yàlla nanguwul mu amee fa mun nga pirater lu nekk ba mu des sëy sëy yàlla moo ko téyel boppam kaaba gi yàlla moo ko téyel boppam alxuraan yàlla moo ko téyel boppam Seydina Muhammad yàlla moo ko téyel boppam yàlla mayul ak accès si kenn si sëy parce que xoola ngoro gi kan moo ko yëg kenn kenn mhm. takk gi takk gi la ñëpp yëg mhm. xoola fii yàlla di eh, garab gu war a doon pénc maalaw du ko gis ba di ko gor kon bu ma gisee du ma gis garab gi màgg ba pare manaan doo leen du leen jox ker gu fiix mm-hmm. bay wax sax naan que ni sëy bi du yàgg noo xoola bu sëy bi du yàgg xam nga su ko doon xam moom mm-hmm. du dawee fii kenn nit la daw maam mataar moo ko fi dàqay waaw ah lu xewoon non déedéet dañ ko mu kooku moo ko pelantudu mu daw. Hmm. am na wala amul. bi mu dawee képp kuy kilifa fii toog na si sa der wax si lu ñaaw moom Ahmed Cissé. Hmm. léegi su fekkente ne képp ku toog fii di kilifa wax na sa der lu ñaaw. Hmm. est-ce que dina bàyyi nit ko xam ne simple nii rek. Ada Beye euh, na nangu Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Cissé natt bi mu ko teggil. xam ni bu négee tuuti léegi mu teggi ko tegaat ko keneen parce que du bàyyi li muy def mais nag gis nga euh, yàq der ndaayam suuf ak ma tàngal la fa ngay àkk di ak moom du neex billaahi wallaahi su fekkee am na si ndam ma xam ni lu yàlla wax kon te yàlla du waxantu yonent bi mm-hmm. xoola léegi bu dee aadaba yi eh, daf ci xam moom ay ayib ay ayib bon mm-hmm. léegi Zeyna Ndour bi nga xam ne mi ngi doog a dugg ci sëy mm-hmm. da ngay coupé mm-hmm. léegi bu dee aada bi dafa mel noonu hmm? Zeyna Ndour mii doog a dugg ci sëy est-ce que amoo droit nga yërëm ko xoola est xam nga jigéen ñu bëri ñu ngi ci Sénégal di sëy nit moo leen ragalloo ba bu ñuy dem seen kër jëkkër dañuy planning bañ faa am doom ba perte te planning bu yàgg si biir bu yàggee day téye doom yi dootoo mën a am doom nit day dem di sëyi nga def ci noppam ne ko kii du la téye te bu dee fenkat ñaata fenkat ñoo nekk fii te seen sëy tasut mm-hmm. waxal kon divorce yi loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy wax kenn ñu ci gennuñu ci parce que léeg-léeg sa conscience lañuy dox uh-huh. wax ni la waji dula teye nga dem def palaani uh-huh. nan da ngay baña am ak waji dom ndax diw neena ki du yor jabar uh-huh. du yor jabar te nga jox ko sa bop xola ma wax la dara euh, euh, yàlla euh, euh neena so yare jigen ba dem ba may ko jëkkër ubil na la ben buntu du deug legi nan ngay gisee lii tuyaaba la te lu yàlla gërëm saa bu sëy fasoo euh, euh, euh, yëfu Seydunaa Muhammad ak lislaam lislaam jóg na uh-huh. Seydunaa Muhammad bég na uh-huh. saa bu sëy tasee iblis bég na uh-huh. léegi yow sëy bi di commencé nga di ko tas léegi yow kan ngay kan ngay xeexal kan tey yonent bi nee na nit di koy taxaw di tas sëy ngay tas say mu ngi melni may waaraate man yonenti yalla muhammad nga ne ma waxo deug te ku weddi muhammad safara ngay dem mhm. kon ku fekk sey di sosu ngay décourager ñey sey yow lan nga mhm. motax fofu la laa sukkandiku ne la kooku dafa murtat bokatul ci diine kon ta wax ak nit ñooñ diine ñu di deglu motax mhm. sank nga ne ma diiw dafa wax nangam manela kan moko wax parce que da ngay deg nga wax hadis ñu ne diiw moko solo mais bu dee ay duul Ahmed Cissé soloo ko duul la rek ay wax wax ju Ahmed Cissé soloo duul la ay duul la ay duul la euh, ba tey dañuy dañuy wëy ay <laughs> ñu gis ñu bëri di di wu la question ci euh, ñàkk ñëw Aby Ndour mhm. waa ñu bëri di wax que ni euh, Youssou Ndour daan na ci dox tànku jàmm ci diggante moom ak Viviane mhm. mais mu mel ni ba tey fa mu nekkoon jóge wu fa waaw xam nga loolu mhm. lu ma ciy wax dama koy répété ñi nga xam ne bu ñu ñëwul sëy du am est-ce que ñëw ñëwuñu. ñëw nañ léegi yow sa ñàkk ñëw wan nañ la sa famille mun na noo def sans yow. Mhm. loolu la wane de. Mhm. bu la leeree ni yow da bokk si famille. Mhm. te famille bi mun nañoo def sans sa teewaay. del bokk ci la nuy def. pour nga suturaal sa bopp. mais boo àndut ak ñoom day won àddina ni. mun na noo def sans yow dooti dara te loolu la wane du ci dara a ah ko xam ne ñëwuloo bañ yóbbante la sag may kay yow doo ci dara d'accord te keroog ki ëpp solo ci nduuréen gépp tax nduuréen gi ñu xam leen moo teew kooku bu teewee teewaale na yëpp uh-huh. tey famille Ndour képp ku ci nekk nit ñi xam la mbaa ñu reconnaître la si dara mm-hmm. mbaa ñu teg la dara mbaa ñu yaakaar ci yow dara grâce à Youssou Ndour mm-hmm. bu du woon Youssou Ndour ñoom ñoom mënuñu dara mm-hmm. xam nga loolu c'est hmm? te Youssou xaw ma lu mu mus a gagné si musique mais démb gañe na musique tax na mu gagné lu mu gagné ay tuyaaba yu bari yoo xam ne moo gën musique xam nga mooy lan bo imaginel bi vivian di njëkk a ñëw si Youssou Ndour nako dama bëgg bok sa orchestre kan mo mënon wax Youssou Ndour nako ki dina nekk sa jabar yaak parce que lool taxu ko woon jëf daje biñ fa daje ba sey am ci kan mo mënon wax Youssou Ndour nako dom dina ci judd bañu wola nga maye may ko ku ñuy wax aada xamul lu dëgg bu démé ba lool lepp mu fekkee ci ko te orchestre bi taxoon ak orchestre bi jur rafet rëkkal nañ ko ndëndi diine Youssou Ndour mhm. keroog mhm. bu bokk ak li muy rëkk mhm. fële ci musigam bi kon loolu yiw la yal na yàgg Youssou Ndour yal na yàgg a fekkee yiw amiin parce que baaxoo na tamit pour mu fekkee yiw ñu Youssou defal nañu lépp si lii dong la ñu deseel mooy mu dem si jumaa ji ñu gis ko si jumaa bi amee tang si ginnaaw mu dem si jumaa ji yuusu ñu teg seen tama yi xam nga baatam bu neex bi mu ñamal ñu si tuuti nodd mbay géey tamit wax dëgg yàlla nekk awkatu jàkka asan caam teg tama ji yaa ngi dégg ñu jox xale yi kon dafa jot ci noppalu ji bu ñu retraité wul it kenn déglootu leen ñoom Youssou Ndour ah, ah dafa naa ah de loolu laa foog de way ñu ñëw ci nouvelle génération bi. déggoo ma orchestre bi ñoo maase. ñoom. waaw. Mhm. te man rek am na lu ma bàyyi. Mhm. waxuma ñoom de orchestre bi ma ñoo maase. waaw ah, bi ñuy sos orchestre bi ak yow. kii laa judd. Mhm. kon daal papa yu jamono bii daf ko war a bàyyi xale yi. xaw ma de mais orchestre bi daal ñoo maase. nga ñëw ci nouvelle génération bi Zénith nga gis Sidi na ko def. ana la moo ci sa réaction. waaw Sidi. si limu def def. fam mu am hmm mais Sidi job jambar la xalé la rek. hmm ñiko wara tété nak ñing koy tété hmm mais euh dama lay wax rek so bis so amone Mourinho. mata job suba tel moy Mourinho. moy Mourinho bu bis parce que mata da ka jaay ci dekk bi jarul mu yobbu ko extérieur bolé ka ak ay nit jaay. Hmm. mu jar. Hmm. c'est clair. léegi mm. euh, ñu ñëw ci ma waxaat euh, ba tey waaw continuer waaw non non mm-hmm. waaw non mataar rek mm-hmm. parce que suba teel yëpp mataar la mm-hmm. parce que suba teel commencé wul musique est-ce que xam nga loolu commencé wul woon musique lan la commencé woon làmb làmb moo tëggoon booy ñaa saa kees leen fàtte loolu suba teel làmb la commencé moo tëggoon booy ñaa saa kon bu ñëwee si musique dafa paree liggéey te tamit gént naa Matar Diop. mu liggéey ak musiciens yëpp. ñëpp ba ci Wally Ballago. waaw. moom Matar loolu est-ce dina yomb. Matar ak Wally ñoo gën a jage xamoo loolu. ah bon oui Matar coon la. noonu. Uh-huh. petit frère la ak grand frère. Uh-huh. Matar Diop suba teel ak Wally Seck nii. Uh-huh. parce que et leen fàtte ni ah nous, uh-huh. a dëgg uh-huh. oui musique. musique